waaw salaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen ziar waaw di leen wax ne sawaay ñun danoo sonn saa gis nga ki fi nekk nii barki sëriñ Tuubaa amel nañu àq boo xam ne ba bañi sàngoo suuf duñ ko ko baal sawaay gis nga ñun kii man ma xam ci histoire musuma gis ku sonalee askanam comme moom ni ñu sonalee musuma koo jàng ci histoire musuma koo gis fenn sawaay barki démb laa laajte Mali ñu ne ma kiro soble barki démb laa laajte Mali ñu ne ma kiro soble kiro soble mi ngi jar deux saa nga ñëw fii Sénégal kilo jafe lu jar 600 saa yi mënatoo yaasa kaldu bi daan am ñaari doomu soble sax léegi benn doomu soble lay am te dañ koy xaaj da ngay lekk ba kaldu bi waaye jeex doo gis soble saa ñun fu ñu jëm kii amee nañu ak barke alxuraanul xadim lii duñ ko ko baal bu mukk laa la wax imaginel ñu war a def élection dem ba suba ñu ne suba la ñu a jël xob bi ni ko dëmbal ci parc bu ndaw bi saa yow rek nañu dëmbal amatul pourtant ñun tëmbalatuñ nii quoi barke Serigne Touba dañuy tëmbal pax bi dañuy tëmbal ñun dañuy voté dañuy voté dañuy voté ku ñu ko dara xañ nag lii lan lay jox a ñëpp ci mooy moomoo doomu dëkk bi ginnaaw raay la dëkk ñu jàpp ko si li nga xamante ni teguwul ci yoon sama xarit la ci doomu ginnaaw raay di ki nga xamante ni dafa bëgg social ki nga xamante ni dafa bëgg jàmm ñu ñëw fekk ko këram jàpp ko si li nga xamante ni du yoon mais ñu bëgg Macky Sall mu bàyyi doomu jàmm yi nga xam ñoom la jàpp bëri na ay doomu ginaara yi nga xam ne ñoo leen jàpp mu ñëw bëgg ñu bàyyi libéré moom doomu dëkk bi yàgg na yàgg na def na ay mois def na ay sept mois nañ ko bàyyi muy si kaso bi muy Momo waaw kii xam na ko baax a baax waaw doomu dëkk Momo voilà Momo doomu gëddoo il n'a rien fait deful dara lu tax ñu war ko jàpp ku dëkk ginnaaw raay nekk doomu Gétto da nga war a ñëw soutenir ko parce lu baax rek lay def raay ci lay wax avenir